match bu neex bu doon dox ci diggante Burkina façon nga xam ni ak senegal yàgg na noo football waaye bii yoon ay ñagamaara ko doon def te match bu ñu musa football nekk na match boo xam ni bu xumb lay doon bu neex bu jom génn ak fulla ak fayda yi nga xam ni sunu njagamaar yi a tey jii fële ca Maroc ci Coupe d'Afrique boo xam ne doon nañ ko am ci penalty boo xam ni waar bi daanaka doon na ko bëgg a diingat waaye la mu mujj mooy dil si xool ah, bii ba wala boo xool la nga xam ne mooy coup franc bi nga xam ne moom lañ tiré penalty jaar na yoon wala jaaru yoon waaye la waar Mawar wala madame Lawar ba mu delloo xool coytu ko xoolaat trio bi nga xam ne moom la àndal ci wàllu arbitre la ñu mooy penalty yi Korka Fall mooy ki nga xam ni mooy dóor la nga xam ni mooy penalty yi yi ma ngay wàcc comme di joor ba la koy dóore bal bi su ko dóoree pala di pied lay doon wala lu mu koy def loolee yéen a ngi jàkkaarlook moom di xool nan la ko war a mën a dóoree moom Korka waaj na plat du pied parfait ak ndànk comme di joor bi la ko dóore waaye ma nga cabaxal bal bi ci côté gauche ba ambiance bi nga xamee ni match bi jeex na ambiance boo xam ni bu xumboon lool